xooli xooli champion bu mag bi chroniqueur bi nga xamante ne bii lum la wax ci làmb bindal Fadama Ngoog Massour Fadama Ngoog ñu naan ko Fadam Junior nee naa leen car macha allah mu ngi nii lu leen wax ci làmb bindal ndax Olof Njaay dafa ne la mu saf ka ko macc rek ko xam te mbonaata xam la ca biir dég ba moom may nuur ba ca biir ban ba te yaakaar naa moom dafa pratiquer ba pare soo a mën a wax ci làmb comme kii ñu waxtaan a léegi mooy suñu papa père Moustapha Guèye grand maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sama waa yi mais jafe nga. waaw loolu la demee noonu la demee wala cuuraay gi. <laughs> mais grand bu bëgg cuuraay ngi nii nag. jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf. mais mais wa dem na këng waxi mag dem na ndañ tàlli. waaw li ma leen waxoon rek laa leen di waxaat Boy Niang tey jii bokk na tey ci biir Pikine di nga xam fan nga ko fekk. mais Tapha tey ji boo koy wër ci waxi Ndakaaru doo xam fu nekk lay waral nag ne na tey jii lamb moo ciy gañewaat tey bi lamb sosoo ba léegi lamb yàgg na fee am mais tey boo ñaar foo war réussir bés bii Tapha tamit dafa ay ñu ko yoroon njukkal ci wàllu lamb dinaa la wax leen nga dégg ko pour boo ñaar mën a daan Tapha tey jii il faut mu jël ay risques. waaw boo ñaar pour mu daan Tapha Tine il mu jël ay engagement tey. engagement jël engagement. Mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw waaw mais mais mais. waaw mm-hmm. mais Tapha Tine Boy Niang yaa ngi woon fu neex. waaw ñu ñëwee nii rek. xam nga euh, day day day lamb joxone nii. diggante Tapha Tine Boy Niang nekk Sénégal gépp bàyyi xel. te def ci ndànk. waaw te def ndax euh, diggante Tapha Tine ak Boy Niang am na lu mu am ci lamb ji. tey jii bu bu déggee coow nit ñi wala lamb ji ba def lu mu mën dañ koy lëng mu ñibbi. Boy ci am. lu ci am mooy tey jii il faut Boy Niang war boobu cinq minutes tey. war a bëri bu yàgg. non bu bëri combat koy ñàkk boo Niang tey jii ci premier cinq minutes njëkk yi war naa jeexal diggante ak Tapha engagement xeex moom xeex bu sax jéem a juumle Tapha Tine jëm koo wor loolu mooy avantage bu Boy Niang ci combat tey Boy Niang tey jii dafa a samp jaaga déplacement gauche déplacement droite xeex ak Tapha Tine ci kaw ba xeex ba sax mu juyaloo ak moom jëm koo song jëm koo sàcc lamb ji ko ci suuf ndax na bëri boo xam ne nii mën naa jeexal diggante ak Tapha Tine Boy Niang am na ko. Tapha Tine lu mu dama naan ko benn loxo ngay xeexee tey Tapha Tine tey jii war na jël yenn engagement yi métti ci làmb li Tapha Tine war a def rek tey jii mooy xeexee benn loxo dagg gardam ba tolloog Boy bàyyi ko fa taxaw xaar ko ndax Boy Niang mënta xaar lu yàgg ci làmb mënta xaar yàgg yàgg yàgg ñëw te Tapha avantage yi mu am mooy Boy Niang ko songu boo songee am na mille chance pour tëru ko jàpp ngembam te bu bañ Tapha Tine jàppee ngem Boy Niang penalty la ci Boy Niang wóorul ci Boy Niang non kenn digalu ko ko dafa forum mooy jàpp ba pare wax su ma ko indi woon tey jii ko benn loxo ngay benn loxo day dagg lewaatoo ba toll boo Boy Niang seere ko fa bàyyi ko fa xaar Boy Niang ndax boo Niang mënut a bëri combat bu yàgg. bu Boy Niang defee déplacement droit tànkam bi ci ginnaaw lay déplacé wu bu defee déplacement gauche tànk bi ci ginnaaw mooy dem ndax mu mën a boo Boy Niang ndax Boy Niang Tapha Tine pour mu mën a liir Boy Niang garde bu du wàcc ndax benn loxo ba lay xeexee benn loxo ba day taxaw di ko xaar bu bu Boy Niang doublé xeex bi ci kaw Tapha Tine da koy xaar ndax song ba Tapha Tine fekk jàpp a xeex non non warut a xeex. combat bi est-ce que gis nga ci kaawoo maanaam dóor mu daan. mënu cee ñàkk mënu cee ñàkk bu fekkee boo ñaar dafa xeexal woon war naa mën a liir droit tafatin boo ñaata war na mën a dóor euh, tafatin coup bu dal pour mu kaw dëbbu mais dóor tafatin mu daanu ci kawoo yombul mais boo ñaar lim soxla soxlawul xeex day jiyaloo tafatin tey jii day jiyaloo tafatin gaynde gi. rendez-vous ci kanam. rendez-vous ci kanam mais li may dénk amateur xam ne tey jii lamb daa am ay xar baaxam mbëri tey jii ku ma ci la ku njëkk ñëw stade lamb baax na ci yow a boot ndakaaru na nga ci bàyyi xel. boot Ndakaaru waaw te saraxu lamb ji tey jii lu weex tàll la. dégg dégguma saraxu lamb ji. lu weex lu mel nii la. lu weex tàll. ku ko ëppal te boot Ndakaaru mën ngaa géej lamb ji. Fada ma wax loolu nee na saraxu lamb ji tey lu weex tàll la te ku boot Ndakaaru mën ngaa jël li nga xamante ne bii mooy victoire lamb ji Fadam nanga wax rendez-vous ci kanam tuuti fii ci arène national ak Leewtoo production jaajëf.